lay fay soxna si maa ngi tudd Amath Thiam. présenté wu li waral problème bi mooy problème mu BRT bi la parce que ñun population Grand Médine mënuñ jàpp ne am projet bu toll ni BRT di jaar fii ñu def si ay milliards muy traversé quartier bu mel ni Grand Médine Grand Médine di am problème yëpp ci àdduna. parce que tey BRT bi dem nañ waxtaan ak ñoom ci wàllu assainissement wàllu restructuration wàllu cadre de vie. lépp lu nga xam mooy eau pluviale tey Grand Médine tey jii bu tawee jafe-jafe bu nekk la ñuy am tey mënuñ jël projet boo xam c'est des milliards mu jaar traversé ci Grand Médine mën nañ ne tey trafic bi nga xamante ne BRT moom la war a gën a def muy transit bi sax transit bu gën a mag Grand Médine la am tey jafe-jafe yu nga xamante ne mooy nekk Grand Médine nekkul ci benn commune nekkul ci benn quartier ci Dakar tey nag moo tax askanu Grand Médine ñu jog nekk benn muy mag muy góor muy ndaw muy ñëpp ñu nekk benn say pour xeex jafe-jafe yi nga xamante ne am na fi te BRT waxoon na da koy saafara te defu ci dara te mënuñ jël projet bu toll nii barki démb président dem di ko nemmeeku tey ji jafe-jafe yi nga xam président moo ko woon zéro bidonville dans Dakar tey ji Grand Médine di nekk si wàllu inondation di tëmb nit ñi di sonn ay xale di ci dee di ci loru tey nag ñu ne nag ñun duñu seetaan loolu projet bu mel noonu bu traversé Grand ñoom ñu jël ay engagement ne dañ koy def pour Grand Médine projet bi nar a dem ba à terme te jafe-jafe yi ñu waxoon nañ a mag tey xale di gaañ suñuy xale gauche ak droite ñun ñëpp loolu yëpp ñu muñ ko parce que utilité publique la mais tey jii amul dara bu yoo xam ne grand bi na ko si bénéficier ku ñu ne ñun loolu lañ dul nangu te tey jii li tàmbali la xeex bi day doog a tàmbali introduction la parce que ñun ndaw Grand Médine mën nañ leneen lu ëpp lii mën nañ leneen lu ëpp lii moo tax ñu woo central nañu jóg jéem a xool jafe-jafe yi nga xam ne moom lay Grand Médine dund ñu xool nan lañ ko dindi looloo tax ñun ñëpp ñu nekk bloc te loolu incha allah rabbi tàmbali la rek dañoo nuyoo rek mais dinañ wane ne ñun papa yi suñu papa yi jigéen ñi ñëpp dinañ génn ñu xeex pour Grand Médine am ci ndam parce que Grand ji li nga xam ne bu tabee ñu jaaxle loolu day jeex loolu moo nekkoon li nga xam moom lañ ne njiitu réew mi mardi génn na di saytu li waral BRT bi ak di xool fu travaux yi fu mu toll est-ce que ñëw na fii yegg seegul fii mais moo tax ñu ne nañu artu nañu dànkaafu parce que yàgg nañ artu yànk dañ dànkaafu di ko def si yar di ko def si discipline parce que ñun ñii bëgguñ dara lu gàkkal teeru grand mais mais mën nañ lu gën a métti lii lii tàmbali la mën nañ lu gën a métti mën nañ loo xam mais dañ jàpp ne waruñ dem ci loolu li ñu dem mooy li nga xamante ne xaalis mu yóbbu askan bi la mooy wàllu assainissement ñu dëkk yu baax yi yi nga xam capital moom la am Grand Médine mën ko am loolu dong lañ soxla li nga xam ne dañ laaj droit la si ñun parce que suñu xaalis bu ñu ko mënee def ci leneen li nga xamante mooy farata war nañ ko mën a def ci leneen parce duñ yegg foofu mën nañ xeex bu gën a métti bi mën nañ xeex bu xaw moo gën a métti bi lool te incha allah fa lañ jëm jërëjëf donc bokk ci comité exécutif bi nga xamante moo nekk ci quartier bi di xeex lépp lu jëm ci wàllu ci amélioration condition de vie quartier bi donc ñu tudd action rapide nga xamante ne mooy lié euh, ñun ñi nga xam dañu impacté ci BRT bi donc mu nekk un projet de 400 milliards boo xam financé par la Banque mondiale ñu jàpp ni un projet vraiment de ce montant warta mën a traverser une commune sans pour autant mu am impact positif vraiment ci cadre de vie bi ci environnement bi ba ci ci employabilité jeunesse bi il est inadmissible un projet bu toll ni BRT bi ñëw fii leur plus grand centrale à béton nekk fii à Grand Médine camions yi di daw à une à une vitesse excessive di tiital sunu famille yi ak sunu njaboot yi te ba fi ñu toll nii amu ci lenn loo xamante ne muy problème boo xamante ni BRT bi jël na ko en considération daaw nag ñu waxtaanoon ba tënk ñu ne ñoom dinañ jël engagement jël problème bi nga xam ne mooy li wax eau pluviale donc ñun dañ leen proposé ñu jël problème eau pluviale yi ak canalisation yi donc ñu ne mën leen jël en considération problème eau pluviale yi ñu ne leen d' accord ñu gis ne daaw ba ren donc ñu ngi liggéey di doxal seen di di doxal seen calendrier te amul benn taxawaay boo xamante ne def na ko ngir sàmmonteeg seen kàddu donc li waral génn bi tey mooy ñu génn fàttali leen def nañ ko defaat ba sonn waxtaan leen jiital leen waxtaan waaye boobu léegi gis nañ ni affaire yi amul benn avancement donc tey nag moo tax ñu baare pont bi baare issue yi nga xamante ne mooy dugg suñu biir quartier ak mooy génn suñu quartier. donc ko BRT bi état moo ko moom moom la laal est ce que xeex dina yomb parce que ñoom bu ñu jëlee décision def ko fii est ce que après yéen di ngeen ci mën dara wala xeex bi ba fan ngeen bëgg mu yegg waaw état boobu noonu en fait naa l' état c' parce que ñun tey jii ñoo ñoo constitué wu vraiment nekk population bi nga xamante ne ñun ñoo fi teg état bi donc état bi dafa war a dox vraiment ci lépp loo xamante ne doon ko jox un budget donc que mu améliorer les conditions de vie des populations ñun li ñuy xeex ne du suñu mbiru bopp du xaalis bu ñuy réclamer dara mais li nga xamante ne mooy dañu am sañ-sañ di évoluer dans un cadre de vie sain am environnement boo xamante ne dinañ ci mën a dund te duñ ci am benn problème donc loolu luñu loolu ñuy ñun ñu ngi fi xeex bi ñu ngi koy xeex depuis combien de temps affaire yi amul benn avancement mais au pluvial au moins ce projet war na ko mën a jël en considération loolu leen gëm léegi nag dajaloon neen fi vraiment boobu ba léegi ñu ngi si di xeex di kaas mais amul benn représentant de l' état boo xamante ne tegu fi parce que jàpp naa ni le représentant de l' état ici c'est c'est le sous-préfet gisuñu ko bon visite bi mu def mardi ñun man personnellement j'étais pas là mais ñun li ñu intéressé mooy tey li nga xam ne def nañ ko muy suñu plan d' action donc ne mooy toutes les issues qui mènent dans le ci gisuñu ko commandant ñëw na fi donc am na lu mu wax dégg nañ ko léegi ñun aussi dañuy replier wu delluwaat à la base te dañ xeex bi dañ si ànd bi nga ñu xam ne du yàgg parce que fi toll nii wax dëgg yàlla toolatuñ foo xamante ni amaan amaan leen patience bi ñu amoon parce que am na lu bari lu fi xew ba ci nawet yi passé donc ay kër yàqu fi alal yàqu fi ay nit dee fi ba tàyyi ci ndox mi donc il est inadmissible ñuy continuer di évoluer ci cadre bi boobu noonu donc mënatuñ ko nangu merci beaucoup merci bu mu ñëw parce que xamul ban ful lay fekki te noonu ken du ko doxalee ba daana tey gis nañ ne liñ taxoon a génn sama gis-gis réussir nañ ko à 100 pour cent parce que ñun taxaw nañ fa ba commandant daanaka li mu fa def ci ay minutes yëpp dafa taxaw dégluñu waxtaan ñun lépp ci dal parce que nañ bàyyi xel ne bi ñuy woote dafa message bu ñu jàllale woon xeexuñu xuloowuñu waaye dañuy laaji li ñu moom donte nag li ñu moom ñi ngi koy laaj ak ñi ñëw bokkul waaye jort nañ ne ngi koy laaj dégg nañ ko te dinañu te dinañu revenir lu gën a gaaw parce que tamit ku si mel ne Pa Omar Fall nañu bàyyi xel bu ñu gisee kilifa gu toll nii ñu woo ko mun noon a toog chaque jour 21 heures di ñu xaar di waxtaan ak di coordonné lu mel nii tey bu demee ba tey ñu mën ko jam yenn baaraam yi si mbooloo mi day laaj tamit ñun ñu xool ñu rafetalee jëm ci moom kenn bañ ko mën a yab ci ci suñu tur loolu mooy li nga xam ne moo waral tey lu mel noonu bi mu amee ñu toogaat waxtaanaat suñu biir xool nan ñu ñuy dajawaat day gën a waxtaanaat am na ay kayit yu fi nekk gars yi nañ remplir ngir yàlla seen tur ak seen numéro ñëpp nañ leen woo envoyé leen SMS wax leen ban plan la ñuy jëlaat que bii A des na ak ñoom parce que li ma wax sànq moo fi nekk Grand Médine moo yor xolu berte bu tëjee central béton bi euh, bloqué kële nu mu tëddi euh, seen gaar mag bële travaux yi boo àggul bi kenn mënu ko tax ah, tabax ba koy inauguré comme que loolu mi ngi suñu doole duñu ñëw nag li ñu am leen ko toog leen seetaan wax na ñoom ñoom dañ leen di déglu dox ay procédure mais du yàgg dara du mat du mat parce que balaa jeudi bii di ñëw dañ tegaat beneen plan boo xamante ni nii ci lañ jëm bu fekkente ne ñoom ñëw ñu revenir ñu tontu ñu ci liñ leen di wax mooy indi ñu tontu yoo xam day daar nañu kat dinañ leen defal lii ñu leen waxoon te naan temps lañ koy defee ut boo xamante ne ni waa grand bi ñu ñoo ciy dugg di traité ak projet yooyu ba après lépp lu si xew ñun duñ fu mu toll fu mu toll parce que lii li ko war lépp waa grand bi ñoo doon toog di groupe bi naan waa BT duñu waxoon fu mu toll fu mu toll ñu njabaloon sax mënuñu indi benn kon ña njabaloon BT fonk leen wala kon moo waral tey ñu dajewaat sama gis-gis mooy réussir na à 100 pour cent kon li may ñaan rek mooy bu kenn bàyyi nañ ko def nii plan benn par benn waajal ko bii di ñëw du yàgg dara nañ jël numéro yi parce que lépp luñ ko doon woon waxtaanee ci mbooloo waaye nañ jàllale message yi ñu war a jàllale ba képp ku war bu ñuy génnaat tey niñ ko waxee woon mooy maanaam tey ñu bëri ci dëkk bi yëguñu ko ñu ko yëg bu ñuy génnaat képp ku nekk si ko bu ñuy génnaat na nekk génn boo xamante ni nii moom bu neexee yàlla bee tey dina xam ne ñu génnoon ak ñu génnaat wute nañu euh, lu ñu naqar di la ndax lu gis nañ ko au delà de nawet bi gis nañ fan yi tamit fréquentation Ndiaga Ndiaye ak camions yi si dëkk bi loolu yëpp boo ko war nañ bañ ko fii lii nag tey liñ gis nii woote bii nii lu gën a tuuti ci quartier bi la te incha allah beneen yoon ñëpp dinañ génn pour taxaw ne xeex bii nii fi ñu ko commencé lii commencement la liñ ciy laaj incha allah dañ ko ciy am parce que nekkul loo xam ne lu ñuy ñaan la suñ droit la mënuñ dëkk ci xoolu Dakar quartier ñuy wër yëpp am canalisation mais ñun ñoo fi du dëgg du yoon rafetul sax munuñ dëkk si digg dëkk bi ñu war a tabax fii tali boo xam ne dafay large après ku xam lycée Padois xam ne mbooleem élève Grand Médine lu ci ëpp foofu la ñuy jàngee booy duñ xëy di fi jéggi ay 4 voies sans pour ñoom passerelle bu leen bu leen assuré wu duñ ko duñ fi toog ba dara di ci am ñu koy doog a xaar concernant canalisation bi nag canalisation da ngay suul ay tuyau ba pare doog a defar tali te liñ seetlu mooy BRT bi ñu ngi defar goudron kon ñoom ñu ngi tali duñ toog tamit bañ tali ba seen i tali pare kon canalisation bi léegi lañ ciy waxtaan maintenant parce que amatuñ jot tey nag wax nañ leen li ñu wax ñoom bu ñu seetaanee télé bi dinañ message bi fa na sëkk ñoom la balle est dans leur dinañ ñoom nañ xool lan lañ am lu ñu indi lu ñu mën teg parce que sonn nañ ñaari ni ñu ngi négocier ñu ngi ñuy dik toogatuñ ci ay dik li ñuy def réellement li fi war a am nañ ñu wax ñu lii la ñu xool nan lañ koy defee nu gën a gaawee bu weesoo loolu leneen luñ gisit nañ xam ne ñun la parce que pare nañ pour lépp nag lu ñu dund nawet duñ nangu mu continuer sonn nañ ci moto pompe moto pompe bu fi ñëwaat directeur b euh, CTUD bi joxoon nañu moto pompe daaw la yam doon soxlawuñu moto pompe am da ko téye duñ fi ngàcc ndox wala BRT bi du yegg. waaw kon asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay kaddu yi nag du du gudd kaddu yu gàtt lay doon te bëgg naa mu am njariñ ndax. li nga l'essentiel bi xale yi wax nañu ko euh, li ñu wax nag dañu fi ànd ak seeni way jur du ñoom ñoo ko xalaat rek dem defal ko seen bopp dañu si ànd ak seeni ay jur moo tax délégué yi ànd ak ñoom déplacé wu dem taxawu nekk seen gannaaw bi ñuy demee demuñu pour yàq demuñu pour taal defuñu pour dara dañ doon yëglu li tax ñuy yëglu nag mooy BRT moo ñëwoon fii am lu mu ñu dikk te muy droit boo xam ne war nañu ko mën a am ndax Grand Médine dëkk la boo xam ni ñi ko wër yëpp fi lañu ko fekk dëkk yëpp am nañu tali am nañu assainissement Grand Médine amul tali amul assainissement loolu nag lanu bëgg mu dakk te Grand Médine ay sénégalais fi dëkk jiitu fi tànnoon Grand Médine booba bi ñu fiy dëkk booba diggante fii ak géej dara new fi ñu ñu soxla fi def fi stade ñëw xaaj gen na wàllu Grand Médine def stade soxla tali bu bees bi ñëw xaaj Grand Médine def ci def tali bu bees pont 80 euh, Sénégal 92 bi ñu ñëw xaaj Grand Médine yow euh, euh, kii ko ñëw ak i yàlla dimbali ñu ñëw xaajaat genn wàllu Grand Médine yëpp yóbbu bi ñu demee wax ak ñoom ñu ne ni am nañu lu ñu namm ci ñun ñaari at ñette at ñoo ngi toog di xaar defuñu benn kii di leen déglu ameet yaakaar ni daañu ko def dox bii ñu doxoon génnuñu pour len dañu génnoon pour yëglu la ñu waxoon fàttali leen li ñu waxoon mais ñoom nañu ko def ñoo nu ko diggoon te it jomb nu war nañu ko am te dëkk bi lu dëkk te bu dee bu dee wote dañuy wote dakaar yëpp fii rek la euh, président gagné kon nag na nu mu defal nu li mu war defal li ko ñëpp amee mérité nañu ko kon nag loolu la ñu bëgg a xaar léegi li xale yi wax nun seen waajur yi ànd nañ ci ñoom te noo leen jiital topp seen ginnaaw lii ñu wax nag noo ngi leen di déglu amul kenn ku nu indil benn information ba ñu baare la taxoon ñu taxoon baare dañu bëggoon ñi yor. ñi ko yore ñëw wax ak ñun bu ñu waxee ak ñun wax lu ñu mën a dégg nu wax leen tontu leen daal di arrêté xale yëpp ñibbi commandant bi bi mu ñëwee jubal ci xale yi bëgg a def ak face ak xale yi man en tant que responsable di délégué dama man maa daw ba ci moom ñëw wax ak moom xëcce ko dama bëgg rek nu waxtaan ak yow man ñu waxtaan yow li te xale yi jog nu bañ def dara benn bruit mais la mu ma tontoo mooy du ma wax ak yow bala may wax ak yow na fi xale yi dégage loolu nag responsable dëgg commandant bi loolu ku responsable waroo ko def parce que bu xale yi réagir woon lu fi mën a am moo ko provoqué loolu nag lu mu war a moytu la te c'est pas la première fois ñëw na fii xale yi def fi ay doodaan si digg dëkk bi doodaan yu jóge yoonu ñëw ñu yeenu suñu kër yi ñëw ni kaa nu xool dëkk bi ñu ngi tëral ay poto lamp ci oto yaa ngi fay baare bu nu ñëwee xool ni jaaru doodaan sax war na fi am waaye nag nañu ko réglementé nañu dindi benn bi def fi wa gas ko wàññi moom ba mu jëfee dafa ne xale yi laa jox dëgg te répété na ma ko sànq neena na mal ba ma ñëwee foofu euh, xale yi laa jox dëgg seen kaw kon moom noonu la de ma bëgg a wax ak moom mu ne du ma wax ak yow waaw ma dellu gannaaw man walbatiku toog loolu moo indi lii nit nag boo nekkee responsable am na musiba yoo xam ne boo ko fekkee danga ko ñëw noo ñëwee rek si ay xale mën nañu réagir te lu fa am yaa ko ni beneen yoon bu ñëwee na xam ne muy ñëwee bu kilifa yi ñëwee di wax ak moom na leen may wax ak ñoom loolu mooy dëgg mooy li jaadu amul lenn ñu ci def leneen amul ñu ciy ragaleen amul luñ ciy bañ parce que sunu dëkk la te dafa ñëw ba si sunu kaw ba fi dara ñëwul waxunu woon dara kii nag dafa ñëw ba ca ñu xaaj genn wàll gi te informé nag parce que am na il paraît que ñëwaat nañu fi ni dañu soxlawaat Grand Médine léegi daal Grand Médine dafa mel ne dañu ko teg rek ñoom bu ñu ñëwee bu état ñëwee rek daggalu soxla rek yóbbu rek bàyyi fa ñu sa des ñi fa des sax dafa leen assainissement ñu mën fa toog si si conditions yu rafet si conditions yu baax loolu mooy li dëgg boo ñëwee soxla état lu mu soxla dana ko jël waaye nag ña mu fa bàyyi na leen defaral ñu am si lu ñu jàpp loolu mooy li doon wax xale yi li ñu wax ànd nañ ci ak ñoom ànd nañ si tey ànd nañ si ëllëg lu defar dëkk bi lu ñu bëgg lu baax ci dëkk bi lu ñu bëgg quant dëkk bi nag bu fekkee ne am na ñoo xam ne xëy na yëguñu ko moo tax ñu bëgg a réagir neneen noo ngi leen di jéggalu te xam ne bu beneenee daañu ko ñëpp xale yi nag donte nag ñii boo gisee ñu porté affaire bi mooy fi fi ñu nekk mooy inondé soo gisee man meen ma ànd ak ñoom moo di gis nga ñaari taw am na fi ñaari ajjuma yoo xam ne su fekkoon taw bi guddi la woon ay moor ñoo fi am nit mën sa dee si ndox mi sax te ñaari ñaari jour yooyu bu fekkoonte ne woon du woon du woon gu bëccëg ay nit ay dee loolu moom ñëpp xam nañu ko looloo tax na ñuy alerter ñoomee li tax ñu gën ci sonn ñooy ne buy taw ñooy ne si mbënd mi ñooy sonn ñooy def lu ne kon am nañu droit nag taxaw porter affaire bi loolu waa dëkk bi laa koy wax ñu xam ne ñi ko porter ñoo lu jëriñu dëkk bi rek a tax ñu koy def kon nag luy jëriñ dëkk bi ku ko dégg rek war nga ci ànd waaye kantaanag man maa ko war a jiite man bu ma ko yëgul du ma ko def ay xale yu tuutee ko war loolu amu fi ñi koy ñii ñëpp dañu yor seen soxna ay responsable lañ loolu rek lañ ci doon wax ngeen baal ñu àq wa